dina bokk ci li ñu tey la xew ci assemblée nationale ci firndeel nag li nga xamante ne mooy mbas mi di coronavirus moom dugg na fa loolee tax sax kilifa yi jël nañu ay ngir sàmm li nga xamante ne rek mooy nekkinu euh, ndaw yooyee nga xamante ne ñoo fa toogal askan wi ci loole nag jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr nee na député bu ko soxla rek dinañ def kem kàttan ngir teste la bu ko defee rek sa xel dina gëna a dal ci jamono jooje nag li nga xamante ne mooy kenn ci ñoom di Aji Mbergane Kanouté mu ngi rek yëkkati ay kàddu ñu ne nag yëkkati na ci ay kàddu yoo xamante ne nee nañ ñoom dinañ def kem kàttan ngir lépp lu wàjj ci wàllu coronavirus foofu ñu taxawaay am ci taxawaay bu mucc ay jamono jooje nag dinañ dem ba ci diwaanu Pikine wax ci lekkool yeeg jàngalekat yi loole nag nee nañ foofee nag seetlu bi mooy ñu bëri du ñu jëfandikoo li ñu duppee geste geste barrière ba tax na jamono ji moom xel dalu foo ñu ngi sàkku rek ci wajur yeeg jàngalekat yi ñu gën a farlu bu ko defee lépp lu aju ci mesure yi nga xamante ne kilifa yi ñu ngi koy digle ñu mën ko topp. loolu nag euh, tombek yokkute bu ñu nemee ko ci wàllu coronavirus euh, fii ci réew mi ñu ne nag faw ñu gën a farlu ndax bés bu ñu jógee rek li nga xamante ne mooy mbas mi di coronavirus di gën di yokku dinañ wax ci tereetu gerte bi maanaam njaayu gerte gi. campagne bi nag euh, ubbi na ñu ne nag am nañ leen luñ ci seetlu maanaam ci taxi yokk nañ ci fukki dërëm ba tax rek ñi nga xamante ne ñoo fekk baax bi ci réew doon ñëw fii. ngir jël euh, gerte gi nag boo moyul dinañ découragé ci jamono jooja nag waa CNCR nee nañ taxe boobu nag euh, dina tax ñu wër askan wi rawatina ci gox yee goxaan yi ngir wax ak ñi nga xamante ni ñooy béykat yi bu ko defee ñu dañ xam niñ ci gën a taxawoo mbokk lii mooy ponk yi boo leen taaxirloo ci ci yaatal mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu door ak euh, dogal bi nga xamante ne jawriñ bi ñu denk lépp lu ci wàllu wërgu yaram jël na ko foofee ci assemblée national ci fàttali rek doomu jàngoro ji di euh, mbas mi wala coronavirus dugg na fa ba am na ay député yoo xam ne rek euh, jot na leen laal ci loole nag kii di Abdoulaye Diouf Sarr nee na nag képp député bu ko yittewu rek dinañu la defal test léegi di de euh, li nga xamante ne nag mooy assemblée nationale tamit euh, jël nañ matuwaay rek ngir lépp lu fay lokku ñu désinfecté ko bu ko defee doomu jàngoro ji mën fa sori bu baax a baax dañuy teewlu kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Alassane ñu ngi fay liggéey ak waa assemblée d'ailleurs ce euh, jege nañ ak ñoom pour def désinfection bi ñu xamante ne aussi dañ leen war a tester. ñu ngi organiser wu avec le bureau de l'Assemblée pour ça mais encore une fois si biir stratégie bi ñu ñu testé mooy ñu suspect wala ñu xamante ne dañoo nekk ay contacts symptomatiques mais képp koo xamante ne itam bëgg nga ñu test la de manière volontaire boobu ñëwee effectivement ñu testé la. dama ne woon immunité collective ou bien recherche d'immunité collective bu nekkee stratégie. loolu toujours boo seetloo mënul ànd ak ay ñu génn àdduna ñu néew parce que li lal loolu stratégie boobu pour parapara paraphraser économiste yi laisser aller laisser faire moo ko lal mooy bàyyi rek mbir mi dem ba ñëpp am immunité collective ñun loolu du suñu du suñu stratégie suñu stratégie mooy détecter ñi xamante ñoo suspect isoler leen dans le cadre d'une charge loolu dafa am solo. desandek waa assemblée nationale ak taxawaay bi ñu fas yéene am rek ci mbas mi nga xamante ne dugg na foofee am na nag ay député yoo xam ne jot nañu fa amee doomu jàngoro ji ñeneen ñi nag ñu ngi leen di topp ndax dañoo jege woon lool ñi nga xamante ne jot nañ leen testé ci loolu nag vice présidente bu groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar di Adji Mbergane Kanouté nee nañu jamono ji. ñu ngi leen di topp bu baax a baax ci lu aju ci plénière bi moom daanaka huis lañ koy def bu ko defee rek lépp lu aju ci mattuwaay yi dinañ ko jël bu baax a baax ci jamono jooju nag du docteur Ousmane Gueye moom dafa gis ne rek faw ñu gën a wax bi su ko moyu rek mbir mi day gën a law may mën a njaayee ca lu raame ni ci liggéey bi. seetlu ko ci biir pencum ndaw réew ma mu am ay cas yoo xam ni biral nañu ko tey jii nag contamination bi fu mu tollu mu mel ni bàyyeeku daf cee am comme niñ ko seetloo ci mbedd mi. am na suñu ñaari collègues yoo xam ne nag fi mu nekk nii ah ba ñu gis seen état de santé mu xaw a euh, suspect dañ leen yóbbu ñu ngi leen téye fu mu nekk nii ci hôpital. maanaam ko euh, dañ leen suspecté waaw parce que xam nga nag. Euh, toujours euh, bu ñu benn suspect amee rek benn cas Covid amee ci ci bërëb dañu war suspecté ñëpp nekk ay suspect donc ñu bëri def nañ test seen bopp seen bopp lañ dema def seen test heureusement mu négatif mais am na ñaar ñoo xam ne fi mu nekk euh, yóbbu nañ leen euh, di xaar nag euh, évolution bi ñàkk a sàmmonteeg ak dige yi looloo tax député yi war a xar seen tànk tubéy ci loolu ñu ne am na ay dogal yu ñu jël yu bees première mesure bi ci jiitu mooy que ne képp koo xam ne liggéeyu assemblée national amoo sañ-sañ dugg fa beneen mesure bi mooy ña fay liggéey kenn ku ci nekk dafay toog bureau jaabante bi dugg si bureau yi dañ ko dakkal beneen mesure bi également mooy ñu teg benn dispositif sanitaire service médical boo xam ne mu ci biir assemblée nationale bi ki ko jiitee nekk un général euh, beneen mesure bi également mooy que ne euh, sunu séance yi nga xam ne dafa waroon nekk public muy plénière yi ñu koy def léegi à huis clos ku xam pencum ndaw réew mi nu mu bindoo xam ni virus bi war na fa faa mën a law. effectivement li nga wax assemblée nationale euh, doomu jàngoro baa nga fa doomu jàngoro baa nga fa bu fekkee la wax moo am mooy maanaam député bi génn àdduna loolu moo tax mu génn àdduna donc doomu jàngoro baa nga fa te gis nañu aussi mu am beneen député bu euh, xibaare ni tey jii moom itam dañ ko testé mu positif. loolu wane na ni doomu jàngoro baa ngi assemblée nationale. li ci am solo rek mooy Euh, prise de conscience bi maanaam delloo si xel bi xam ni la ñu doon def du noonu donc nañu changé doxalin moo tax tey maa ngi saluer seen wax bi ne dañuy def huis clos. kilifay réew bi ñu ne duñu toog di seetaan ndax kat am na ay dogal yoo xam ne jël nañu ko service di d'hygiène jot naa pompe béréb bi désinfecté ko jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér gi yaram bi mi ngi xam le ni képp ku laale ak ñi am mbas mi daañu la saytu testé la. mën a njaay dañuy desandeek jëwriñ boobee di Abdoulaye Diouf Sarr nee na nag li leer mooy li ñu duppee ñaareelu vague moom am na fii ci Sénégal maanaam coronavirus moom mu ngi fi lëmbee ba jamono ji ba tax na nag dinañ gën a yokk matuwaay yi nee nag nguuru senegaal dina jël dogal yi war ngi képp kuy doomu réew mi wala ku fi nekk nga mën a saxoo digle yi bu ko defee di mën a mucc muccal ña ca des Alassane Ba la ñuy teewlu ci liggéey bi àndoon ceeg jafara yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax ne ñu ngi si parce que mbir pour nga mën si jot bu baax danga koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñu ngi si mooy que ne quarante cinquième semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décollé wu jógee quinze vingt cinq ñu xëy rek mu yegg quarante trois dem ba soixante dix communication bi xamante ne war na si te askan bi war ko téye ñu war a fexe ñëpp bokk si mooy communication communautaire danañ ko booster waat bon donc mesure yooyu mooy mesure yi xamante ne mënatuñ ko économiser effectivement ñu ngi fay liggéey ak waa assemblée d'ailleurs ce matin euh, jege nañ ak ñoom pour def désinfection bi ñi xamante ne aussi dañ leen war a tester ñu ngi organiser wu avec le bureau de l'Assemblée pour sax mais encore une fois si biir stratégie bi ñi ñuy tester mooy ñu suspect wala ñu xamante ne dañoo nekk ay contacts symptomatiques ñu des euh, ci mbiru coronavirus ak euh, nekkin bi ci lekkool yeeg yenn daara yi seetlu bi nag foofe euh, ca Pikine ci CM Chérif Mouhamadul Tidjani foofe nag seetlu bi mooy bëri na ñoo xamante ne tey rek lépp ci wàllu li ñuy duppee geste barrière maanaam fexe ba aar sa bopp moom jëfewuñu ko ba tax na daal jamono ji ñu ngi sàkku ci jàngalekat yeeg waajur yi ñu jàppale leen ci liggéey bi bu ko defee taxawaay boobee ndongo yi mën ko am abi Faye ak du Diop ca diwaan. ci biir salle classe bi la ñu nekk waaye fii sol fi masque jafe na lool ñu gis ko donte de ndaw ñi xam nañ jafe-jafe yu mu leen mën a jural ci seen wàllu wér gu yaram. am naa ko kay non man balaa may génn suñu kër sama papa dafa ma jox ay masque dafa wax naa ko takk pour ma protéger wu Covid bi nee ndax moo ngi fi ba tey jeexagu. masque bi daal dañu doon dañu quoi. mën nañ dañ koy sol mais dañuy cours yi cours yi bu commencé bëri après duñu mën nooy bu baax dañuy kii voilà. lii yëpp ñàkkum jumtuwaay waral na ko ba tax na itam ñoom jàngalekat yi di ñaawlu. ci kër ga parents yi aussi léeg-léeg ñoom ñoo war def li ñuy def ba avant ñu ñëw école bu ñu nee école aussi ñu ngi def li ñu mën mais le matériel bu ñu waxantee dëgg mooy xaw na des. jumtuwaay maanaam am na mais des na waaw bu ñu waxantee dëgg mooy des na. jaxasoo euh, jaxasoo gu ñu tam ci kër yi moo ñëw nag ba ci yi. ba xam ne ñi ñuy jàngal ak ñi leen jàngal sax dañu mujj a nekk benn dañuy jegante dañuy bëgg chaque fois pour ñu dégg lu ñu leen di wax sax ñu jege leen pour wax. waaye faaw rek l'état yu sóob ci ab loxoom ngir rek bileeg mbir ñu gën ko mën a saytu. ak début d'année bii nii effectif dafa gën a yokk donc il faut peut-être ñu redoubler aussi yokk nombre boobu. ah parce que nii avec une vingtaine de classes à chaque fois c'est pas facile. tax na itam képp ka nga xamante ne waaye defal yàlla nga ñu tàllal la sa loxo ngir gën a mën a aar ndongo yi. mu ñoo def distanciation sociale boobu ñu wax noonu tey bu amut mën na bokk ci li nga xam ne tey mun na wasaare li nga xam ne mooy jàngoro bi moo tax tey jii nii muy ñiy jàngale muy ñii nga xam ne ñoo ŋànk école bi ñoom seen bopp war nañu mën a euh, def ay jéego ci maanaam lu ñu am ci ay moyens. pour sensibiliser benn. coronavirus bi demut ma ngi fi ñoom ñu wax li ni mel waaye ñu respecté mesure barrières yi jafe na lool ci établissement scolaire yi nekk fii ci mim réew bàyyeeku bi gën nañu ko fi nemmeeku waaye itam teewut ñoom ñu ne faaw ñëpp dugal ci seen loxo ngir ñu gën a mën a xeex li ni mel bu ñu bañee ñu tëjaat école yi ndax jàngoro gi. Abi Faye te jëmeekal boobu sax waa ministère de l'éducation àddunañ ci nee na xalaata ko jamono ji duñu tëj benn lekkool jàngale bi daal day wéy ba tax na rek amoon nañ ci ab ndajeek uh, taskatu xibaar yi ci foofee nag nee nañ rek uh, faw ñu gën jàppale ñi nga xamante ne ñoo jàngalekat yi ci loolu nag. ku nekk moo ci war a dugal sa bopp sa loxo bu ko defee rek li nga xamante ne mooy euh, xeex coronavirus bi ñu mën ko jëlee ci réew mi rawatina ci lekkool bi moom euh, Moustapha Diagne amal na ab ndaje foofe ca diwaanu Thiès ci teewaayu Cheikh Anta Diop la woon ak say laatir ci gis-gisam Mouhamed Moustapha Diagne mi nga xamante ne moom mooy directeur formation ak yor lépp loo xam ne wàllu communication la ci ministère bi nga xam ne moom moo yor njàng meeg njàngale mi gis ne wax ñi wax jamono yi ne dañu fas yéene tëjaat l'école yi dara du ci dëkk di wax nag ni ministre moom envisagé wul vraiment ci di tëj ay école parce que loolu moom euh, jàng nañu dund ak virus bi xam nañu ni ñuy gérer suñu école jàngale te duñu duñu feebar. ñu pointé école bi euh, parce que dafa am remontée de corona. bon li ñu ci mën a wax mooy école ñeenti millions ci ay njàngaan ñoo fay nekk xam nga fekkante ni bii foofu feebar bi dafa dugg wax dëgg yàlla du wax ay ay 20 cas ay ay ay 100 cas 40 nga xamante ni bi aussi ñooy ñoo yor mbirum wér-gu-yaram nee nañu euh, bu ñu ko jàngatee fii feebar bi jógee mooy euh, bàyyeeku gi nga xam ni gis nañ ko ci population bi ak ci xew yi nga xam dañ koy organiser ay cérémonie ay événement ñëpp teg nañ ci seen bët nga xam ni foofu du benn protocole loolu aussi daf koy indi. moom sax nee na am na ay pexe yoo xamante ne teg nañu ko ngir nag ndongo yi nga xamante ni ñi ngi ci l'école yi di jàng duñu am benn risque ngir yenu doomu jàngoro ji. mu nga xam mooy ministre éducation nationale wax na vraiment acteurs yëpp IA yeeg IEF yi chef d' établissement yi comme euh, directeur d' yi ñu veiller ci protocole sanitaire bi ndax protocole sanitaire boobu moo tax président autorisé ñu ñu lu ubbi l' yi nañu surveiller xale yi ci biir école bi ak ci environnement. Euh, l'école yi loolu moom vraiment ministre bi tërit na ci. moom sax mi ngi ciy sàkku ñi nga xamante ni ñoom ñooy syndicats yi parents d'élèves yi ak ñu yëngu ci wàllu njàng mi ñoom ñëpp ku ci nekk taxaw temm nag jàppale jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor njàng meeg njàngale mi ba feebar bii di coronavirus du dugg ci l'école yi. Cheikh Anta Diop ñu wax ci leneen traite bi taxaw maanaam campagne arachidière wala njaayum gerte gi atum ren ji nag kilifa yi rawatina ki nga xamante ne mooy saytu lépp lu ci wàllu mbay mi mu ngi xaarandi li nga xamante ne mooy record maanaam la xamante ne yatta ngi amuñu ko lu toll ci benn million tonne ak lu tegal ci ay tonnu gerte loole nag ñu ne dina tax ñu jël matuwaay yu war bi ñi nga xamante ne ñooy baykat yi mën a gis seen bopp bu baax a baax ci lépp lu aju ci seeni liggéey ci loole dañuy teewlu ministre musa Baldé ci micro Alassane Ba gerte commencé na ñaari ay bés ci ginnaaw donc demul fenn te boo xoolee baykat yu bari heure bi ñu ngi ci seen tool yi maanaam di bàcc gerte di ko bes donc loolu moo tax xëy na heure bi point de collecte yu bëri commencé guñu gis nañ ni daaw ñi nga xam ne ñooy defar diwlin ñu mel ni Sonacos dañu amal jafe-jafe donc instruction président de la république mooy li muy teg ay mesures mesures yu mel pour nga mesure mesures yu mel na ren par exemple pour nga exporter gerte Sénégal ci bitim réew mooy Chine mooy feneen boo jëlee kilogramme bu nekk war nga ci teg juróom benn dërëm ci ci trésor Sénégal maanaam tax te tax boobu exportation yi bi ñu commencé dinañ ko appliquer jël nañu yeneen matuwaay aussi ci organisation campagne bi pour que ñu mun suivre campagne bi ba bu amee ay problème ñu xam ne maanaam Sonacos du mun a am gerte dinañu rectifier ba en tout cas ren balaa campagne bii di jeex ñoom Sonacos ak Copéol ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy def diwlin ñu am gerte pour mun a def diwlin parce que dañu soxla suñu industrie mu dox dañuy desande gerte gi gerte gi ak kàddu yi nga xamante ne rek wala dogal sax njiitu réew bi jël na ko rek mu aju ci wàllu taxe bi nga xamante ne dañu fas yéene teg ko rek ci lépp lu aju ci euh, jëlee gerte gi fii yóbbu ko bitim réew mu toll ci fukki dërëm loolu nag euh, tax na ba ñenn ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci boobule fan ne boo moyul nag euh, ñi nga daan xam ne. yu daan bàyyi ko biti réew di wut si fii gerte dinañ banque seen yoxo te loolu du arrangé ñi nga xam ne rek ñooy baykat yi ba na rek eh, ñi nga xamante ne mooy syndicat bi ëmb wile yi fii ci Sénégal yëkkati na ci ay kaddu di sa Prerak Papa Sangoné mbay am na ñu ci tasel képp ku fi bëgg exporter ci gerte kilogramme bu nekk li nga si fay juróom-benni dërëm ab surtaxe bu président Macky Sall taxawal ci conseil des ministres dogal bi baykat yi ak huiliers yi ku nekk am noo ko gisee. maanaam surtaxe bi ñun jàpp nañ lu baax la parce que ñoo xam ne dañuy jënd gerte gi pour yóbbu bitim réew laaj na réew mi jëlee ci dara ci li ñu yóbbu bitim réew nañ jàpp li ñu surtaxe bu ñu leen di bëgg a imposer suñu dee atteindre nañ objectif yi ñu bëgg a dinañ dugal ci gaf ak nguur gi diggante 15 ba 18 milliards loolu nag tuutiwul. moom euh, lu baax la président bi def donc ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant mais dañuy fàttali ne am na taxe ba boo xam ne mu ngi fi woon 40 francs boo xam ne kenn abrogé wul loi boobu dañ ko suspendroon tey bu ñu buggee créé beneen loi def ko trente francs yaakaar naa ne li gënoon te gën a gaaw mooy bi fi nekkoon te kenn dindiwu ko ñu dundalaat ko te bàyyi yëf yi mu dem parce que leer na ma ne même bu ko yóbboo fukki dërëm. ñoom gan yi nga xam ne ñoo fi nekk dinañ ko nangoo jënd. donte sur taxe bi rafetlu nañu ko CNCR jàpp ne loolu warul tax ñu tere étranger yi ñu ñëw jënd si gerte gi ndax ñoom njëkk lu ñuy fay ñoom gis nañ ci seen bopp. est-ce que huiliers yi ñu fi ne ñuy protéger est mun nañ ko naam nguur gi def na effort jox nañu jiw jox nañu engrais waaye ñun def nañu effort dencoon nañu jiw denc engrais et semence yooyu ñu xalaat ñun dañ koy dencoon suñu bopp fekk li ñu nguur gi jox ñu boole ak moom di jàpp itam. ñoom seen bopp waruñu fexe ba nga xam ne tey ñu fi ñu di jënd suñu gerte yi njëg loo xam ne lii gis nañ suñu bopp ñu buntu xatal bu ñu génn réew mi loolu ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg li ko waral mënoo gis ku jëndee ku lay ku lay ku jënd coo bëri ko gerte juróomi junni nga gis ki ci des ku war ko jënd coo juróom benn junni nga di ko jaay. syndicat bi ëmb liggéeykatu huileur yi li mu jàpp mooy situation bi dafa dëpp ci njaayum gerte gi te bu ñu moyul mën nañoo am ay jafe ci wàllu euh, semence. dañu ne nañu jënd jiw yi ba mu doy jox usines yi gerte ba mu doy li ci des la gan yi war a ñëw jënd pour que gerte bañ a des ci loxo béykat mais bu ñu ñëwee bu ñu ubbee campagne bi ubbee ñu campagne bi ñu ñëw taxaw li fi nekk yépp ñu nar koo akimo bu boobaa dañuy rey euh, ni nga xam ne mooy usines yi ci biir Sénégal ci fàttali décision bi président Macky Sall jël li ko tax a jóg mooy maintenir objectif de collecte et de trituration bu Sonacos waaye fexe tamit ba préserver li nga xam ne mooy liggéey yi am ci huilerie yi. Tissa Preira bu ñu jógee ci gerte gi dañuy wax ci mbirum pomme de terre fii ci réew mi seetlu bi mooy at bu nekk lu bëri dina ko ci ay tonnes ay junni junni bi ci réew ñu indi ko fii ci réew mi loole nag ñu ne tax na. ba diwaanu Ndar géej am na lu mu nasaxal ci yëngu-yëngu askan ba ndax boo jëlee réew poloñ daanaka lu toll ci ay tonnes yu bari la ñu jëlee pomme de terre di ko dugal fii ba tax na rek ñi ngi xam te ñooy yëngu ci fan woowee di sàkku ci kilifa yi ñu xool taxawaay bi bu ko defee ñu mën a aar ñi nga xam ne ñooy béy wala ñooy yëngu ci mbayum dër bi Ousseynou Diop Habib Seck ñoo ñu teewal ca diwaanu Ndar. Sénégal at bu ne lu mu jëlee ci ay pomme ci bitim réew di ci réew mi dafa bare. ci ndar géej nag ñi nga xamante ni ñoo koy jaay nii mbir mi dafa cher. te kon waroon nañu xoolaat beneen i pexe ngir jafe-jafe boobee ñu mën ko daal di dëddu. si dafa gën di dafa gën a cher prix bi te prix bi ngay dafa yokku te loolu maanaam ak dëkk bi fi mu toll nii warul mën a demee noonu xam nga. waaw li ñuy jaay ñun comme ñun prix bi doon jënd dañuy jënd bagage boo xam ne dañuy jënd mu yokk mais ñun prix bi doon jaay rek la ñuy jaay parce que mënuñu yokk quoi. Euh, fruits koy jëndee actuellement sànni ñeeri foofu lay foofu lañ koy jëndee. indi ko fii Saint-Louis di fi ñu ngi fii di daan suñu doole la ci seen i kàddu njaay ma dafa dëgër lañ ci am ca koppar néew lool te lenn rek moo mën a tax Sénégal loolee mu mën ci génn mooy fexe nañuy bayee pom ca bitim réew di ko bayee ci mim réew taxawaay bi mu war a am de mooy xam nga comme maanaam ñun ni ni jéegaa jéegaane di di di ñëw di di réew noo mën a def loo xam si ni dinañ ci yëg gis suñu bopp maanaam ñi investir ci fii la war a demee mais xam nga di jéegaan yi ci àll loolu tamit doxalul société bi quoi. affaire moom parfois comme comme jéegaane bi daal mooy mooy metti de trop ñun bu doon suñu sawo prix bi gën a wàcc aussi. pomme bi ñuy jaay ci diwaanu Sénégal rawatina ci ndar géej jamono jëlee doxul dara li ko waral nag mooy sedd bi. waaw instant bi gaa sedd bi bu see dugusee fruit day xaw a taxaw tuuti waaw euh, par rapport ak tàngaay bi laal la ëpp li muy dox. Ah. Sénégal dafa war a wut ay jumtukaay yu wóor ngir pom bi nga xamante ni dañ koy jéggaani ci bitim réew di ko indi ci biir réew mi loolee ñu koy mën a defaree filé loolee mooy xalaat bi nga xamante ni ñu ci bari am nañ ko ci diwaanu Ndar Géej ci marché bi nga xamante ni mooy marché Tendiguène ña koy jaay bari nañ lool waaye nag la ñu xamle mooy lañ ciy am itam dafa néew. Ousseynou Diop daf ngeen seetlu bi du pomme de terre waaye pomme li beneen euh, xeetu meññeef bu ñuy jëfandikoo. ñu wax ci leneen rawatina lu jege aada ak tàggat ndaw yi ba kenn ku ci nekk nga mën a yëngu ci fan wa nga xamante ne moom la nga tànn ci loolu nag ñu ngi taxawal benn projet bu ñuy duppee Sénégal Talent Campus loolu nag yëkkati nañ ko ci euh, bésu tey ji fas yéene daal tàggat ci ay ndaw yu bëri bu ci defee rek euh, dinañ xam seen taxawaay bu baax a baax ci lépp lu laale cosaan ak aada fii ci réew mi dañuy teewlu Amadou Fall mooy coordonnateur boobu le projet ci microcherche. te li ñu tax a jóg mooy ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi. ñu ngi liggéey ci culture bi mais amuñu formation professionnelle amuñu kayit amuñu dara amuñu euh, certification diplômante ñu encadré leen dimbali leen ba nga xamante ne feeg ñaari at dina mën a am liggéey parce que li am solo yëpp mooy ñu formé a d' abord pare boo amee formation bu baax man yaakaar naa am liggéey bi mooy gën a yomb mais fii nit ñi dañuy liggéey te amuñu formation te loolu moo tax saa yoo leen bëggee jël il faut boobu la ñu bëgg moo tax léegi ñi nañ def formation bu certifiante bu qualifiante boo xam ne état bi ko partenaire yi reconnaître secteur bi aussi reconnaître na ko parce que loolu c' important parce que ñun ñoo dem seeti état boo xoolee projet bi xaw na dis tuuti parce que liñ ci def mën na juróom fukki millions ci bind programme bi rek mais boo nattee ñaari at yi di ñëw boo ci boolee équipement bi réhabilitation salle yi ak foofar yi ak euh, euh, équipe administrative bi dina dem ci xaaju milliard wax comme état du Sénégal moom engagé wu na pour euh, jël bourse yi 325 ci année phase pilote bi ak ville de Dakar mun naa wax ne partie boobu moom du payant mais bu ñu beneen configuration mooy am loolu yàlla xam mais suñu yéene mooy ñun ñu ci benn logique commerciale on est plus ci logique militant maanaam jàppale ndaw ñi accompagner leen waaw école bi ñu ngi koy waajal incha allah juin 2021 bu ci yàlla ñu yegg si ci cappaandaw xibaar yi waaye niñ ko dóore woon noonu lañ koy tëjee ak mbiru mbas mi di coronavirus am na dogal yu wàdd nag njiitu réew mi wala sax ministère de l'intérieur génne na ab communiqué ci loolu nag nee nañ jël nañ matuwaay yu yees li nga xamante ne. moom lañ digle woon jël nag léegi nag mu aju ci wàllu sol masque yi nee na képp ku ko jëfandikoo rek buñ la gisee du ñàkk dinañ la teg ay daan ci loolu nag am na tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci administration publique ñoom euh, lu aju ci wàllu secteur privé ak itam ñi nga xam ne ñooy faral di dem ci marché yeeg li mel. war nañu saxoo li mel ba ci ñiy dugg ci woto yi am na beneen xeetu euh, dogal boo xam ne wàccati na mu aju ci lépp lu aju ci euh, ndaje yi maanaam ci plage terrain de sport yi euh, lu aju itam ci li nga xamante ne rek mooy espace publique wala sax saalu spectacle yi nee na nekk loolu yëpp dere nañ ko ba jëmi jamono kilifa yi nag jël nañ dogal yooyu rek ngir dakkal li nga xamante ne mooy euh, propagation maanaam virus bi nga xamante ne bés bu ñuy yeewoo rek. muy gën di law ñu yegg si ci euh, xibaar yi nga xamante ne rek dañ koy ndar képp de loo lenge yi euh, waa régi du ci kanam tuuti rek Chérif Diop dina fi toog jukki leen xibaar yi ci français jërë ngeen jëf.